mbokk jullit yi daarul xuraan ci Touba daaru mën naan ci njiital Serigne Makhtar Diène di daara ji ñu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru zeng ay ndongo yu bëri mokkale fa alxuraanul karim daara jay dox ñuy yokk seen jéego ba tey daara ji mel nii macha allah ci ñaanuk Serigne Saliou Mbacké Khadimou Rassoul di complexe scolaire franco arabe mu méngoo ak jamono état du Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneen langue majalis yeneen xeetu xam ak njàngale métier di formation complexe scolaire franco-arabe kër Mam Awalo ci njiital Serigne Makhtar Diène ca Touba Darou Manane am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire lijaase ya fa ndongo ye génne di CFE BFM ak baccalauréat di ay diplôme d'état complexe scolaire franco-arabe kër Mam Awalo ca Touba Darou Manane ci njiital Serigne Makhtar Diène di ko tax a jóg mooy yaatal xam-xam ni ko Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee blog yi ngeen gis ci complexe bi mucc ayib lool sécurité bloc A ñu tuddee ko Daaru Alimul Xabir bloc B bi ñu tuddee ko Njenne Lagan bloc C bi ñu tuddee ko Touba kom ci complexe scolaire franco-arabe Kër Mam Awalo ci njiital Serigne Makhtar Diène ca Touba Daaru Manaan jàngale mu mucc ayib ak jàngalekat yu xarañ lool yéen waajur yi bëggal seen jaboot avenir bu leer nañ ngir ëllëg ñu mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen waajur jëriñ seen réew taamu leen complexe scolaire franco-arabe Kër Mam Awalo ca Touba Daaru Manaan ngir seen doom

Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu jaara ngir moonu nu sampi daara tarawlu jaara bu leen ma tàngamlu bu leen ma ndoxum ki di tàngal karaw du leen nu sant soxna jaara ngir moonu may tax nu sampi daara bu ma tàngamlu bu leen ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal jalantu leen tew bi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp te génne seen bagaani xol te taaten mam jaara waamele ku naan yaabon taw na bawal kajoor ak njaambur bawal a ku mar ëllëg dob jaambur waalo ngi wal wali di gental asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nuy seetaan tey ñu ngi fii ci tuubaa ci daara sëriñ Makhtar Diène tolloog alxamis fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août tolloog fanweeri fan ci weeru muharram di bis bi nga xam ne tey dañu fay fas yéene départ fii ci daaray alxuraan ji jëm ca dëkk bu sell bali nga xam ne moo di naawel di dëkkub soxna ma asawaalo ma asawaalo nag soxna ma asawaalo nag kenn la ci yoonu murit doy na sëkk ñu ne moo meññ ki nga xam ne moo di soxna jaaratullaahi mariama suñu jógee ca dëkkam bu sell boobu nag faloon fas yéene dem dëkk ba li nga xam ne moo di poroxaan di dëkkub soxna jaaratullaahi mariama ga nga xam ne moom i tamit fa la wàcce woon liggéey fa la doon liggéey la borom bi ba wàcc fa liggéey ñu fas yéene faa yóbbu waa daara ji nga xam ne <coughs> ci seen sàkkuteef ci seen bëgg-bëgg ci la sëriñ Maxtaar jenn defee loolu ngir jëlal leen lu toll ci ñetti biis yoo xamante ni danoo fas yéenee dem incha allah rabbi fu ci nekk nag ñu dem fa siyaare ko xam jeexit ya fa nekk xam soxna sa fa nekk ñu jàng ci histoire boo xamante ni dootuñu ko fàtte mukk xam ngeen ne ñu ngi yóbbaale ñaari xasida yoo xamante ni fas yéene nan bu àggee foofa xale yi jàng ko fa ndax li ko sabab mooy xasida gii ñuy wax Tuhfatul Mutadarayin wax nan ne sëriñ bi daa fekkoon soxna maa Assa Dia waalo daan tawasulu di jàng yeneen i xasida sëriñ bi taalifal ko xasida gi ne ko gii de jàpp naa ne moo gën a matale gële nga doon jàng soxna maa Assa waalo di ko jàng xasida si ndiini tamit ku nekk xam na ne sëriñ bi def cee tawa sulu bu baax a baax ñaanal ci ñaari waajuram ñaanal ci soxna jaaratullahi Mariama loolo moo tax nag bu ñu demee ba barab booba danañ ko jàng moo tax ñu fas yéene ànd ak xale yi ak jigéen ñi <coughs> ñu kan mooy soxna Assa waalo moo tax tey jii ñu ngi départ alxamis tolloog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août tolloog fanweeri fan ci weeru mu aram 2023 ñu jëm poroxaan ak naawel ñu jëm naawel ak poroxaan kon mbokk yi ngeen seetaannu ñu àndandoo wan leen fi nga xam ne sunu biis yi nga xam ne moom leen fas yéenee dugg muy biis yoo xam ne yu sedd la yu nu kilim yoo xamante ni incha allah rabbi moom la xale yi fas yéenee dugg ñu ànd dem poroxaan xaw na xaaraa mel na la yàlla jaali di tudd seeni doom di tudd bamba araam na moom rekk attan yen ba yow yaa di bu sa beeli ñàkkoo cangaay ndeka nga jog sang nu jox nay gaay yaa tax jigéen seeni doom di meŋ yaa tax jigéen ñi ñépp yaa tax jigéen ñi lamasoo ay malfaa nuy soli aw sa fu soom nu jël ba yaa tax jigéen ñi dama ay mal nuy soli aw sa fu soob nu jaar fa jigéen ñi dañ daa gaar di woddoy soppee góor ñi pii juy baxa roppi yaa suturaal aw reyit yun joote mbakkee nga mel na ndar jabaa ngay juuti laam fa gétti ndar te si ndooni yoon ngu ko waa tuubaa gedeg ci ndoodi laaw ba gerte nar am si ndoone nga ko waa Tuuba gëdëg ci ndoodi jaaraamam jaara ku xam jaaraama yaa kawal sa doomaray karama jaaraamam jaara ku am maqaama yaa kawal keroog bisub qiyaama jaaraamam jaara ku am ay xarbaax yaakaar la sa doom feeñal baax jaara maam jaara kuy faj aajo yaakaar la sa doom faj su naajo jaara ku am widaaya yaakaar sa doom am sa doom jommal jinne jaara maam jaara saarful jiini jox naa la jukka yi rafet jum nga jubal tey jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe ba jolli te jikko yi mooy bëgg lim amoo ñu bon ña ko amoon yaroo leen daawu doo janni daawu la doo jeyu doo jaayoo jaay ci jeyi yaa soobu yoonu jannata nayimi koloroyul jam jaaramaak jayini saraag yi tax na baragal nga yàlla rafet rafet njortu taxam nga yilla réewoo réyoo réeroo ne naa la daali doo doora mbaaj bu sabaali amoon nga faayda amoon nga fulla te amu fit am fitna yàlla fal gore nga am nga kersa am karaama am nga ngërëm yow yaay borom maqaama amoo kañaan goree bi woon am bëli doo dox di cakkantoo ko kiituwaale marsey ji misaali tuuti laaj leen ko maami soxna faati tuuti maam samba maryaama ma daa cem lef am dan li jaara moo ko taalif noon na bagaan woon fi soxna jaara mooy reeru kaay bépp dongab daara mbande ma musta te dañ daarootaan mooy naanab kaay gaa yi dañ seetaan mësul a siis mësul dox di bodde mësul di wex wexloo ko di gëdde daawul werante ko xuloo na njël di moo tax selong dul jur nga kuy jur mbol di kuy daay ma am sëriñ mamar moom jaara mbol di di daam jogi tooñ mooy baara dangaa lewe nga ma njaboot ne cher di moo tax nga jur jàmbaar ji mel ne gaynde daaw la songante ka dox di daane aka defante tax na am nga waane wàcc nga jaajëf yaa selong lu busa yaa tax ba ni seeral guraa ka buusu séerul ci àjjana nawul iini naa lay muriti ak sa doom lil xiini moo tax ñu jaaratul ilaaya maryaama moo turu mag bilaaya moo tax ñu la jaaratul ilaay maryaama mooy sa turu mag bi lay ummu xalifatu rasulullaay muhammadin walde abdulaay imaamu awliyaaw laaw am nga maqaamati rijaali am nga lu kenn amul bileehi maam jaaraneel alhamdulilaay maryaama bokk ci muqinaatu laay ak i jërë jëf eh, table bi sunu ginnaaw jàpp naa ne gis ngeen liñ ci bind muy naawel naawel nag buñ ko tuddee seen xel dina dem ci soxna maam soxna Asta Walo maam soxna Asta nag mooy waajuru eh, soxna jaaratullaahi Mariama nga xam ne ñu ngi déparé Touba tey bi juróom-ñeent waxtu jotee tey ci alxamis ji yamook le 17 août 2023 ñu bàyyi ko ca daaray Serigne Makhtar Diène ànd ak waa daara ci góor ak jigéen ak ñoom ñëpp jàngalekat yëpp ñu ñëw ngir siyaare si soxna su sedd si nga xam ne moo tëdd fii ngir jàng histoire mu doonoon ab jàngalekat bu mag a mag boo xamante ni nag ñu ngi fas yéenee jóg nag ànd ak yéen wan leen barab ba ak siyaare ak fi soxna si daan jàngalee ak fi nga xam ne fa la soxna si nekk bu nu fi jógee nag ca ñuy dem Poroxaan kon topp leen ma ñu daal di dem ca barabu soxna maam Asawaalo bu nu demee wan leen jeexit ya fa nekk ak xale yi nga xam ne ñoom ñëpp ña nga àndandoo ngir siyaare si jëmm ju tedd jooju nga xam ne mooy maam soxna Asawaalo mi nga xam ne Serigne Fallou waxoon na kan mooy njaag ñu ne ko déedéet mu ne kii mooy njaag kon njaag lan bëgg a seeti topp leen ma ñu dem naawel sa tey doj ak yeñ la defoon fa naawel señam su musta doj te duñ ko ñaawal musiba bu ko sóoru jiréewi saalum te soxi takk mbaa kayit fulaayam yaa baaxu tur bu so te baaxu askan asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonantam bi ni ñu leen ko waxe woon ñoo ngi fii ci naawel ginnaaw bu ñu jógee Touba ci daaray Serigne maxtaar jenn ñoo ànd ak daara ja nga xam ne mooy daara alxuraan ja ànd ak jàngalekat ya nga xam ne ñoo fay jàngale ak yaayi daara yi soxna Ami Mbàkke mi ngi nii toog ànd ak ñun ak Serigne Ale mi nga xam ne ànd ak mboolem jàngalekat ya ak ñi nga xam ne ñooy taxawu mboolem daara ja ci ay góor ak i jigéen Serigne Makhtar indi leen fii nag ñu ngi nii tàbbi ci fi nga xam ne moo di naawel ci kër Serigne Moussa naawel mi nga xam ne moom Cheikh Moustapha Bassirou ñu ngi koy siyaare baax te Serigne basiiru doomam nekk fii dalal nu ci kër gi ñu bëgg a ànd ak yéen ngir dem fële nga xam ne moo di ca barab ba siyaare waaye balaa booba comme dañoo ànd ak jàngalekat alxuraan ñu jox suñu aale mu wax xale yi ñu ubbil nu ci alxuraan ñu daal di koy siyaare sëriñ bi dem ca barab ba nag fa yéene fa ànd wan leen lépp lu xew fii ci naawel bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi leen di bu baax a baax yéen suñu mbokki yi eh, soxna si Mbàkke ak ñi ñu àndal ñëpp di wax rek ñu ubbeekoo ay aaya alxuraan jox sëriñ Cheikh Saalix Jeen mu ubbil ñu ay ay ay euh, quelque aaya ci ci alxuraan bu defee ñu barkeeloo ko barab bi nuyoo ko sëñ bi comme que fekkuñu ko fi waaye ñu nuyoo ko ko rek nopp soog a wëlbati ko daal di jàll ca barab ba incha allah suñ Cheikh bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لكم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه حبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفترون يفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني قطرا صدق الله العظيم mboldi kuy raay maam Sëriñ Mamar moom jaara mboldi di daam bu jagi tooñ baara danga lewe nga ma njaboot ne sherdi moo tax nga jur jàmbaar ji mel ne gaynde daaw la songante ka dox di daane aka defante tax na am nga waane wàcc nga jaajëf yaa selong lu busa yaa tax ba ni seeral guraa kabuusu séerul ci àjjana na awul iini naa lay muriti ak sa doom lil xiini moo tax ñu naan ko jaaratul ilaaya maryaama mooy si turu mag bilaaya moo tax ñu naan la jaaratul ilaay maryaama mooy si turu mag bilaay umu xalifatu rasulullaay محمد ولد عبد الله أم إمام أولياء الله أم مقامة رجال الله أم قالوا كان مل فيلن بليه ما أم جارني الحمد لله مريم بوقت مقنات الله سدو مدن كجانج بسم الله مدن أحمد أبيب الله محمد جس أمين وهي الله yaay turandoo maryaama ummu isa saayidatu nisaaw waawnga si isa moo doon isa majruwaw laay moo doon muusa kalaamu laay moo doon xibramay xaliilu laay moo doon xaadama shabiiw laay tuubaa liman tabbi ahla laay waynun liman ankarahum bilaay lañu joxoon muhammadul mekiyu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu ngi fii ci naawel niñ leen ko waxe woon tey jii tolloog alxamis tolloog le 17 août 2023 ñu jóge fële nga xam ne moo di Touba ca daaray Njenne daaray Serigne maxtaar Jenn ja ñëw fii nag ànd ak mboolem njaboot ga ak daara ja ñoom ñëpp ñu indi leen fii nag li tax ñu indi leen fii nag kii mooy soxna Asawaalo di waajuru soxna Jaara waaye di waajuru ki nga xam ne mooy soxna jaara soxna jaara di waajuru Serigne Touba ku nekk xam na ne lu nu am rek ci ñoom ñooñu lañ ko amee soxna sii nag di soxna su reyukaay soxna soo xamante ni wax nañ ci taarix ne ñi gën a gudd fan ci yoon ci ci histoire bi ci histoire yoonu murit moom mii la ndax téeméeri at yi teg na dara lu mu néew neew boole ko bi mu fi nekkee da daan jàngale gis ngeen ni jàngukaay baa nga nele teen bii tamit mi ngi nii loolee tamit mu doonoon koo xamante ni ñu bari sax dañ daan wax ne daraan sol ab jàllaa bi di jàngale doonoon jigéen joo xamante ni wax nañ ne jàngal na Serigne Touba ñu ànd ak daara jooju nag nga ñëw xale yi nag manoon nañ leen a yóbbu ci tefes ya ca géej ya wala ñu yóbbu leen ci hôtel ya wala ñu yóbbu leen ci dëkk yi waaye loola benn jeexit la dul am waaye jeexit bi tax sëñ Matar indi leen fii mooy ñu roy soxna si roy ci melow yi mu nekkoon képp ku fi jógee tamit boo ëllëgee nga mën a doon am soxna sa waalo boo fi jógee nga mën a doon am sa soxna jaaratulaahi Mariama ñu jox Abdou Khadir Lo ñu jox soxna ami mu nuyoo rek bu ko defee moom i tamit wax xale yi ak taxawaay bi nga xam ne indi na leen. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen nuyu baax di ziar barab bu sell bi ñu taxaw di ziar Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal Serigne Makhtar Diène borom daara ji suñu borom yàggal fi lool te may ko wér di ko sant bu baax tamit lii mu ñu defal tey tax bërëb bu selli bii kat ku la fi indi ku nekk mënatoo koo fay waaw di ñaan xale yi ñu àndal nag di dongay daara daaru xuraanu karim su borom sàmm leen te aar leen te def leen soxna sawaalo def leen ay soxna jaara Euh, ci njàmbaar ga ak jaamu yàlla ga ak euh, jàng nangoo jàng alxuraan te di ko jàngale di ñaan daal xale yi ñu fi àndal yëpp suñu borom defal ñu leen ay soxna asawaalu defal ñu leen ay soxna jaaratulaay di sant bu baax jàngalekat yu ñu àndal ak Serigne Saliou Niang asalaamaaleykum bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaanal ak Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom tabaraka wa ko fi te wéral ko ak mboolem sant bu baax baax Cheikh euh, Mokhtar Diène nga xam ne moo nu may occasion bi nga xam ne lu jafe la yombut euh, di gën a sant yàlla bu baax a baax nag ndax bërëb yu mel nii ku fi ñëw dañ fa war a jàngee lu rëy rëy lu màgg ndax boo déggee soxna Asta Walo ni koy melale ak jikkoom ak jaamu yàllaam ak ragal yàllaam ak baaxam mën ngaa royee ci moom ndax kat loolu la yàlla di soxla ci nit mooy roy nit ku baax boo seetloo sax léeg-léeg buy roy buy wax yonente yi diw jaaroon na fi Ibrahim jaaroon na fi Moussa jaaroon na fi Youssouf jaaroon na fi lim ciy teg mooy yow mi koy déglu na nga roy ci ñoom ulaika alladina hada allahu fa bi hudahu muqtadi ba mu waxee yonente yi ba àgg daal di wax ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga roy ci yonente yi yooyu fi jaaroon kon nag bër bi mel nii boo fi ñëwee bul xool rek maanaam bër bu rafet bi ni mu mel waaye jàngal soxna si jikkoom ak baaxam ñu koy melal moom soxna si dafa ragaloon yàlla kon fexeel ba doon ku ragal yàlla dafa doon ku gëm yàlla kon fexeel ba doon ku gëm yàlla dafa bokkoon ci ñu baax ñi kon fexeel ba baax baax nag mooy martaba bi gën a kawe yàlla buy tàgg Ibrahim li muy wax wa innahu fi l la mina alsaalihin la mina alsaalihin wa innahu ah, wa aataynaahu ajrahu fi dunia wa innahu fi l axirati la mina alsaalihin kon suñu borom baax la soxla ci nit bërëb yu mel ni nag wax dëgg yàlla ku fi ñëw war nga ca jàngee lu rëy rëy rëy kon nag dañuy sant yàlla bu baax a baax bu ñu fi ñëwee ak di soññ suñu bopp di soñ xale yi bu baax a baax nag ñu fas yéene góorgóorlu ba mel ne soxna si incha allah di leen ko ñaanal nag suñu borom yombala lañ ko. jërëjëf sëñ Abdou Khadir jërëjëf soxna ma ami kon mbokk yi jàpp naa ne parti bu njëkk bi nga xam ne ku nekk xam na ne Touba ak fii fu soree la li nu fi indi du am gaasuwaal du am xaalis waaye yéene ak xalaat bu rafet ak roysi ku baax moo tax ñu ñëw fii. li fi indi woon soxna sii tamit mooy jaamu yàlla ak topp ndigalal suñu borom ak jàng ak jàngale doon koo xamante ni tey jii jàpp naa ba mu tëddee ci suuf ak léegi léegi mu ëpp téeméeri at. waaye boobu ba léegi nit ñaa ngi bàyyi ko fu nekk di fa ñëw rawatina nag mbooleem koo xamante ni am murit nga fii sax xemmemteef la doomi sëñ Tuubaa ju nekk ñëw na fi sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Laat sëñ mu Moustapha Bassirou wax naan ne 1982 la yeesalaat fii sance ko sanc naawel kon moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla taxaw yàlla tabbal ko àjjanay si ak doomam ju baax ji nga xam ne sëriñ musa moom lan fi fekk fekk fi doomam muy sëriñ Bas mu boole noog njaboot gi ñu ñëw siyaare dem nañ ci barab ba jóge fa ñëw fi soxna si doon jàngale ñëw ci teen bi nga xam ne fi la daan duy am ndox te booba ndox yombul te booba tamit ku nek xam na ne waañ wi tamit fi mu daan jàngalee tamit ay góor ak jigéen la fi daan jàngale moo tax woykat ba waxoon ne jigéen ju man cere man ceeb xam xadis man a woy man alxuraan bind kaamil soxna ma aswaala du kenn du keneen kon yàlla na ko yàlla fayal sunu jéego yi di dem ak dikk yàlla na doon ak daraja ak maqaama sëriñ Maxtaar Jenn ñi ngi koy ñaanal sunu borom yokk ko te wéral ko te yàggal ko ba yéeneem ci lislaam lim ci yéene lépp yàlla na gudd fan ni soxna si gudde woon fan yàlla na ko yàlla taxawu ci barkeb Serigne Touba ba yéeneem ci alxuraan ak liggéey lislaam àgg ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaye balaa booba ñu ngi jëm kon poroxaan incha allahu rabbi guddi guddi poroxaan leen jëm seeti doomam ju màgg sell jooju ñuy woote ñuy wooyee jaaratullahi mariama ñu ngi ànd ak yéen ñu dem incha allahu rabbi poroxaan سيدنا asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ni seetaan seen Tawfekh Production ak Tanim TV ni ñu leen ko waxe woon tey jii di alxamis yemoog la 17 Euh, août deux mille vingt trois yamoo gi tamit la trente muharram mille quatre quarante cinq ñu bàyyi ko fële ca Touba euh, ci de daara yi Serigne Makhtar jenn di tëli bu bees ngeen gis waa daara ji ñëpp ñu indi leen tey ñu jaar naawel ñu ngi nii nag di dugg Poroxaan dëkk bu sell bi jóge nañ ca njaag waaye agsi na ñu ngi jëm ci doomi Njaak mooy kan mooy soxna Mariama Jaaratullaah ki nga xam ne amul genn bëgg gudut yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ñu ànd ak xale yii nag sëriñ Maxtaar indi leen fii jël ñetti biis yoo xamante ni bu ci nekk ñu ngi ko kii ànd ak lépp loo xamante ni xale yi ñu ngi leen koy defal ci biir oto yi di leen gate di ànd ak ñoom di leen xamal kan mooy soxna maam Asawaalo waaye di leen xamal kan mooy soxna Mariama Jaaratullaahi ñu ngi nii nag di dugg fas yéene leen a demal ca barab ba demal leen fa nga xam ne moo di daara ja demal leen ca teen ba mbooleem barab yan fay siyaara ak ya nga xam ne bu nu fa dolloo dinañ am xale yi dinañ am culture dinañ am référence dinañ xam kii lan moo ko indi woon fii muy dëkk bu sori diggante mag Touba waaye nekk ci diggante bi ak fi nga xam ne moo di Sénégal ñu fas yéene leen fii wan soxna su tedd si nga xam ne ak dundam passé wut fanweeri at ak ñett ñu jóge ci waajuram bu tedd ba kon ñu àndandoo dem fa nga xam ne moo di Porokhane حسنات سيئات seetaan tey ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi ni leen ko waxee woon ci suba ñu nga xëyee ci dëkk bu sell bee di Touba Almaxrosa bi nu fa jóge ñu jaar fële nga xam ne moo di naawel fa la ñu jullee tisbaar ca soxna astawaalo mu doon dëkk boo xam ne bu am taarix la kon na ñu ngi jóge ci njaag ñëw ci doomi njaag soxna jaaratulaahi fi leen ñëw ñu ngi nii taxaw ci wetu barab bi lépp nag sëñ Maxtaar jenn moo tax ñu ñëw fi xale yi xam ngeen ne bu leen daan gis ci ay émence yooyu dañuy defe ne ci tefas yi lan war a dem ca géej gi wala ca tourisme yi wala ca hôtel yaag yooyu waaye Sëriñ Mataar ne leen di leen di yóbbu ca soxna jaara ñu xool ko xam la ko fa indi woon ñu jàngal leen taarixam xam xam la indi woon soxna ma asawaal la ko indi woon foofa loola moo tax ñu boole noo sëñ soxna ma amee mii nga xam ne soxnaam la di taxaw ci daara ji guddi ak bëccëg ak euh, kii ñu jël ñetti kaar yoo xamante ni kaar loo xam ne lépp lu ci woo loo xam ne nit dana ko soxlawoo mu ngi ci biir kaar yi ñu indi leen fii ngir ñu xam kan mooy soxna jaara kon dañuy jox sëñ Mamor mi bu ko defee mu leeralal na tuuti ci soxna jaara ñu soog faa jóge nag dem ca teen ba soog a delluwaat Touba nag incha allah rabbi na ñëpp ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér na ñëpp ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg waaye na ñëpp ñaanal sëriñ Maxtaar Jenn sunu borom yàggal ko fi lool te ko loolu na ko ñëpp wax sëriñ Maxtaar na ko yàlla yàggal te li mu am muy dooleem xam-xamam ak manam ak kàttanam lépp def na ko ci lislaam te bëggul ku ko wax ki koy wax sax kooku la gën a mere ci ko ci koy ŋaañ kon yàlla na ko yàlla taxawu te yàlla aaral ko boppam yàlla féete ko fépp ci barke Sëñ Tuuba ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp comme fi mu daanale kàddoom di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ko wér di nuyu kilifa jotaay bi soxna am Ami Mbacke bintu Serigne ma sàmba ak jëwriñ Serigne Allé bu ñu leen nuyoo rek nuyu nañ ñëpp waa daaray Alxuraanul Karim ànd ak waa école kër maam Hawa Lo si njiital Serigne Mokhtar Jenn yàlla yàlla yàggal ko fi ndax lii dafa nekk lu am solo comme ni ko sëriñ bi waxee léegi liñ xamoon si ab école wala si ab daara ñuy amal li ñuy wooye baatub sorti di dem si yenn dëkk yi mënoon kaa bañ a wooye am foo sax waaye nuru na ko lool di def yenn yi bàyyi fi suñuy culture yoo xam ne suñuy culture yi mag ñu baax ñi la ku ni soxna jaaratullahi bu sa mariama ak fan bàyyi ko léegi di soxna maam asta waalo mbokk yi tamit ak yéen xale yi ginnaaw da ngeen nekk si waaru xam-xam ngeen bàyyi xel ne bërëb bu leen dem war ngeen fee war ngeen faa jëlee xam-xam waaye nekkul rek dem dajaloo fataw waxtaan li tax ñëw dëgg-dëgg mooy ñu jàngat bërëb bi moo fi indi lii ak ki fi nekk moom mooy kan xam ngeen ne bërëb bii di poroxaan tey war nga bu la fi la boo fi jógee ñu laaj la ne poroxaan fan la nekk war ngaa xam ne poroxaan kat mi ngi bokk ci région de Kaolack waaye boo egg poroxaan fan la xamoo ko kon loolu taxul ñu ñuy tax ab ab kon boo eggee rek yow mi jàng war ngaa xam bu baax a baax poroxaan fan la nekk mi ngi bokk ci région de Kaolack surtout nag yéen ñi nga xam ne da ngeen a nekk si lu ñuy wooye préparation ay examen ndax loolu la ñuy wooye euh, saqaafa culture dafa dafa dafa dafa am solo élève bi bàyyi ko xel bu baax kon bërëb bi ñu nekk moom mooy Poroxaan Poroxaan nag am na histoire bu yaatu lool waaye ki fi tax a indi rek euh, jug mooy Soxna Jaara Soxna Jaara li ko fi indi woon leen la mooy dafa amoon ku ñuy wax Mabba Jaxu Ba Mabba Jaxu Ba boo moomu moo amoon ay séeréer yoo xam ne ñu woon côté yii doon xeex diine islaam bi ñuy xeex diine islaam nag tubaab bi ñëw ànd ak séeréer yooyu di jàppale bi tubaab bi ñëwee di jàppale séeréer yooyu moom itam nag mu woo mu convoqué mbooleem koo xam ne ab sëriñ nga te nekk si tund wi mu woo la nga ñëw Mamour Anta Sali nag daa faral di dem daa faral di def fu daa dem daa yóbbaale ak njabootam xam ngeen ne soxna jaara nekkoon na ba Bawal ndax fala uh, ab taawam di maam Mor jaara feeña jamono ah nekkoon na uh, xuru Mbàkke xam ngeen ne histoire bu bëree bëree bëri si soxna jaara sax xuru Mbàkke la waaye nag ba mu jógee Mbacke jóge xuru Mbacke fii la ñëw di di di di di di Poroxaan date bi nag jàpp na ne mi ngi nekk ay diggante ay mille ay côté 1846 yooyu moo nekkoon xeex ba léegi nag biñ leen biñ convoqué si la maam Mor Anta si li ñëw indaale ak njabootam maam Jaar ah, ah, ah, maam Thierno Birahim daamal daal Mour sax fii nii fi la feeñee jamono mooy fi la juddoo aywa kon soxna Jaara loolu moo ko fi indi mu nekk fi nag di liggéeyal Maam Mor Anta Sali waaye di jaamu boromam ba suñ borom moom ko fi. bi ko fi suñ borom moomee nag si atum 1886 moo tax ñu daal ko fi 1866 euh, euh, en fait si lañ koo denc barab bii moom mooy barabu soxna jaara radiyallahu anha kon loolu mooy histoire poroxaan mooy xeex bi nga xam ne moo amoon diggante Maba Jaxu Ba ak ceddo yi nga xam ne ñoo doon ko wax islam si la convoqué mbooleem koo xam ne daa nga woote diine mu ñëw Mamour Anta Sall tamit dafa ñëwoon indaale ak njabootam bi mu indaale ak njabootam si la soxna jaara ñëwaale soxna jaara tamit fi la nekkoon doon liggéey Eh, eh, di di liggéeyal borom bi waaye di liggéeyal borom këram Maam Mor Anta Sali borom moom ko fi eh, tey ñu daal ko fi denc denc gi nag lenn warulu ko lu dul jamono jooju ay moyen daa amul ndax xam ngeen ne booba léegi oto yu ay oto yu yóbbu ay nit wala ay taaliba yu bëree ba yoo xam ne Maam Mor Anta Sali amoon ñu mën a jële soxna si yóbbu ko yóbbu ko bërëb ba bëgg amut loolu moo tax ñu yaa koy denc fii naka noonu tamit loolu moo dal soxna ma Asta Waalo fa la jóge di waalo moom itam borom këram di Sëriñ Bousso bi nga waajuru euh, euh, euh, Mamor kii soxna soxna jaare mi tamit loolu moo ko daloon moom itam dafa demoon yóbbaale soxna Asta Waalo ba mu waalo googu moom itam suñu borom moom ko fa ñoo ko fay denc kon xeex bi loolu loolu moom moo ko war loolu mooy Maba Jaxu Ba moo doon xeex ak ak ñoo xam ne ay ceddo lan ba yàlla moom fii soxna jaara waaye nag mu laa fi ñëpp boo xoolee tamit si kanam tuuti dana fa dem am na ay daara am na daara soxna jaara daara jooju tamit mu tënkaale daara jooju ku ñuy wax Serigne Moustapha Bassirou moom moo ko fi def si Moustapha Bassirou nag doomi Serigne Bassirou la sëñ Basiiru li ëppoon da daa ñëw fii si Poroxaan mu féete fi xam nga ne sëñ Tuubaa ay doomam ginnaaw bi mu bàyyi ko kenn ku ne fa sëñ Tuubaa daan ëpp lu dem daan daan dem am na am na ab bërëb boo xam ne yow yaa ko jagleen li tax sëriñ Basiiru tamit nekk fi dafa amoon benn taalibe bu ñuy wax sëriñ May Mbuub moom taalibe bu sëriñ Tuubaa la woon bi fi sëriñ Tuubaa bàyyi ko moom da daa dundal màggal gi mooy daa daan fàttali ko soxna jaara léegi dafa amoon année boo xam ne dafa woowoon sëñ Basiiru bu sëñ Basiiru ñëwee mu ne ko kaañu ñu ànd dundal bis bi ba suñ ba suñ Basiru ñëwee mu jox ko kër suñ Tuubaa ga jox taaliba yam amoon yëpp mu féetale ko léegi nag noonu la suñ Basiru di continuer nekk si Poroxaan ba suñ Basiru bàyyi ko fi suñ Moustapha Basiru ñëw fi suñ Moustapha Basiru doxal fi ubbi fi daaree Poroxaan ji naka noonu tamit la fi liggéey liggéey bu am solo ba turu soxna jaara yi ak yu bëree bëree bëri bëri bëri moom moom moom moo ko fi moom moo ko fi yaatal ba bi mu fi bàyyi ko suñ Muntaxa ñëw yor liggéey bi yàlla na ko fi yàlla yàggal lool ak njabootam yàgg koo taxaw kon ñi ngi ñaanal suñ Muxtaar Jenn bu baax suñ borom yàggal ko fi ndax liggéey bi liggéey bu am solo la ndax jàng bi ni jàng ay maami jaamur dem di jàng ab am nasaraan loolu solo sa bëriwul so ban ban lan lan war a jàng mooy suñu histoire maam yi kan mooy soxna jaara kan mooy soxna maam astawaala kan mooy maam ba joxu ba kan mooy maam fàtti waddu wale loolu moo am solo ngir culture bi des si ñun kon lii lu am solo la ngir boo fi bàyyi ko mën a xam kan mooy soxna jaara yéen jigéen tamit ngeen roy si bu baax si soxna jaara ndax soxna jaara li ko may li leen dong la woon mooy topp ndigalu borom ak topp ndigal borom këram xel fii sax daanaka histoire bi lu bëree ba amu fi waaye histoire am dëgg ma nga ma doon téye sàkket wa fa la doon defee yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen yeneen kon topp ndigal borom këram ndekete jigéen gi mën na see amee dara kawe ndax ngeen soxna jaar li am bëri waan li di wax kam min rajulin qaama maqaama imraatin rajulin loolu moo da soxna jaar mooy bëri waan ay góor yoo xam ne taxawaan nan taxaw waaye bëri wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon mbokk yi ñu àndandoo nank rek dem ca teen ba ni mu ko waxee nag euh, fii ren daare maam jaare ji mokkal nan lu kaar lu toll ci ñeent fukki jigéen ak benn mokkal nan fi kon nag loolu góorgóorlu la boo déwénee yéen itamit ñu ne daara sëñ maxtaar mokkal na lu toll noonu wala lu ko ëpp ñu ngi koy ñaan ci barkeb soxna si di ñaan ñii fi ñëw soxna si dégg nañu gis na nu ñuy ñaan aaj ku fi wuñ daal aaju yal na ko yàlla faj ak ñeneen ñi nga xam ne lii tawféex dëgg la ndax màggal ak Touba ñu ñëw fii di ko fi waajale naaweel ak fii loolu tawféex dëgg la yal na nu yàlla fayal sëñ maxtaar yal na ko yàlla kattanal yal na yàlla dëgëral jàngalekat yi xale yi fay jàng yal na suñu borom mokkalal yal na doon muuram Sénégal doon muuram sëñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jëmale kenn ku du rek euh, sëñ Maxtaar Jenn mi nga xamante ne ginnaaw yàlla sabab bii ci moom la sab ci moom la bàyyi ko ñu di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla may ko fan fanu gudd ak wér ndax lii mu def nii de wax naa ko léegi ni ko joxuñu la doomi doomi jàmbur yii nga yóbbu leen ci sorte yoo xamante ne dañuy dem ci géej baa ñu dem ci tefes baa ñu dugg ci leen lu xamut waaye lii nga leen defal mën na ni mooy sorti nag lislaam ndax ginnaaw bi nu wattoo téere sunu borom tabaraka wa taala bi jàng alxuraan ba nekk seen i dënn ñoom ñuy kenn ku ne ci ñoom mokkal téere sunu borom bi bi nga leen bëggee bëggal yóbbuwoo leen fenn fudut fii nga xamante ne si bërëbub ñaanukaay la bërëbub sàkk sunu baax la muy fii nga xamante ne mooy poroxaan ginnaaw bi nu jaaree naawel tey ci suba bi nu fa jógee ñëw fii nga xamante ne mooy barabu ku tedd gi di soxna Mariama Jaaratullaay fii nag bërëbub ñaanukaay la kon ñu ngi fiy ñaanal sëñ Maxtaar jenn moom sëñ Mor jenn moomi le yàlla na yàlla may ko fan wu gudd yàlla na daara yi yokku yàlla na ay xéewalam yokk di ñaanal bu baax a baax nag ki nga xamante ne mooy soxnaam su baax si nga xamante ne yaay dongee la ak yaay daara yi di soxna soxna ami Mbàkke mi moom Serigne Moustapha Aminta Amar moom Cheikh Massamba Bàcc Anta Ceebu moom it wax dëgg yàlla la war a def ca daara ji lépp ma ca keppaar sëñ Matar ga di saytu donge yi ànd ko ñi xam te mooy Serigne daara yi nga xam te kenn mënut a dem bàyyi leen ñoom sëñ Abdou Khadir rek ñoom sëñ Bousso beeg ñoom sëñ Aleeg mboolem ustaas yi nga xam te ñooy wattu jàng xale yi kon yàlla yàlla may leen fanu gudd may leen ak wér ba a sëriñ ndax kenn du ñoom nag ndax ñoom ñii ñooy toog ca naajo ñooy toog ci donga yi di leen sa di leen jàngal banu mokkal ban mën a ñëw fi tey kon sëñ waxtaan yàlla yàlla may ko jàmm la ñu joxoon Muhammadul Mekkiyu mi ngi jox Muhammadul Mekkiyu marhaba umu Ahmadul Mekkiya wal su diine Ahmadul Mekkiyu marhaba umu Ahmadul Qadimi xalili sil braaxe lay soomo maraba oxtu ahmadil mbusoobe ku mësër tataam na tuubi ruubi tatay dojag yañ la defoon fa naawel seŋem su musta doj te duñ ko ñaawal musiya bu koo sóoru ci saalum te soxi takk mbaa kayit fulaayam yaa baaxu tur te baaxu askan yàgg nañoo siyaare ngeen ci yoneen yaa rafetub juddu te baaxi waajur ku xañ ci sey si di jihlil ngor maam yaa gàddaaya jadee ki tooro diine goree leen te juboog lam tooro musee bu leena jiiti jig wilaaya mbaal quraan maa xam-xamub diraaya daaw ñu fuukaree mbirum waliyu ngi ay sërif la ñooy doone xaliyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ni seetaan ñu ngi fii ci Poroxaan ni leen ko waxe woon rek ci tey jii di alxamis yemook le 17 août 2023 ñu bàyyi ko fële ca Touba ca tëli bu bees daara sëñ Maxtaar Jenn ànd ak mboolem jàngalekat yi daara ja ak ña nga xam ne ñoo fa nekk ak élèves yi ñu ñëw jaar fële nga xam ne moo di naawel jóge naawel ñëw Poroxaan ànd ak soxna Ami mi nga xam ne moom lañ suñ Maxtaar booleel ak jàngalekat yi di sëñ àll ñu dikk nag fekk fi kii xam ngeen ne waxtu yu ñu toll waxtu bër la biñ dikkee fekk naan xale yi bër waaye nag ñu fekk fii ki nga xam ne moo yore gardien bi ñu bëggoon koo laaj daaree poroxaan ji euh, nan la demee fi ñu toll ak nan la fi programme bi tëdde salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ndongali daam see Baye Fall moo leen di siyaare yéen ñëpp xam naa nag wàlla daa yàlla daa dogal ci li nga xay moo xew ci daara ji hmm. ah ci waxtu wi ñu toll waxtu bër la kenn nekkatu fi. léegi nag xam naa ni kii maanaam jamono ca kanam dañuy war a dellu si waat li nga xamante ni si moo ci am solo nag moom daal di wax dëgg yàlla Pastef bi rëy na lool te nit ñi daal ñu ngi ci yoon wa daal. ñaata nombre ñoo fi nekk ci xale yi mu tudd maam jaara. nombre yu jaara maam jaara. maanaam juróomi téeméer ak juróom fukk fi ne jamono ji ñu ngi fi. ci 2023 bi. ci 2023 bi waaw. Euh, ñaata ñoo mokkal ren. ñi mokkal 41 la. ñeent fukk ak benn waaw. ñaata jàngalekat moo fi ne. fanweeri jàngalekat ak juróom-benn ñoo fi nekk. ñoom nan la seen programme di tëddee ci njàng mi. ah njàng mi de xam naa manaam waxtu yi maanaam mooy bu huit heures jotee. Hmm. dee ñu dugg ci école bi. Hmm. bu ñu ba dix heures. Hmm. ñu génne leen ñu dem extra maanaam li ñuy wax extra. ay onze onze sax la ñuy génn extra. ba onze heures et demie ñu duggaat. une heure la ñuy wàcc. su ko defee bu ñu demee ba trois heures. ñu gontaat ba six heures ñu doog a wàcc. waaw. jërëjëf kon ñu laaj soxna Diarra Gadiaga mi moom fi la nekkoon ci 2005 bi nga sëriñ bi ubbee ba euh, ñëw na fi ci at yooyu ñu bàyyi la nga nuyoo wu baax. asalaamaaleykum wa ngi ziyaar ñëpp di ziyaar waa daara yi soxna Diarra di ziyaar bi nga xam ne ñoo fi teew tey pour seet si daara ji. yow kañ nga fi ñëw. man 2005. 2005 2005 bi nga fiy ñëw ñaata ñoo fi nekkoon. Euh, juróomi téeméer soxna jaar. juróomi téeméer. Mhm. Euh, yow ban année nga mokkal. 2014. 2014. Mhm. Euh, ñaata am nga fi def mokkal. def naa fi juróom-ñeenti at. juróom-ñeenti at. Mhm. bi ngay mokkal mokkol rek da ngaa bind bindoo. dee bindu ma dee. ah bindoo. daara ji noo gisee woon seen programme lan la nga nu ci mën a fàttali jamono yooyu. Ah, daara ji moom seen programme macha allah wax dëgg yàlla. yaakaar naa ba tey maanaam nem nekkee woon changement bi daal gën na yokk ndax gën na neex mm-hmm. neexoon na ñun mais daara ji dafa gën a neex mm-hmm. ndax lépp luñ loo xam ne soxna jaaree soxla nañ ko ci biti mm-hmm. am nañ ko ci biir daara ji léegi ñoom am nañ seen bitik bu nga xam ne lépp luñ itteewoo moom la ñuy yor am nañ seen apartement bu nga xam ne ci lañuy ñuy jàng togg wàllum gâteau yëpp mi ngi ci biir daara ji daara ji daal macha allah moom dara manqué wu neex na trop léegi bi nga fi duggaatee lan la sa xel dem. maanaam sama xel dafa dem ci dama am ànd ak mbégte daal mbégte bu tarkalla wo hmm. ndax dama ñëw sama kër kër bi nga xam ne fi laa dëkk. Hmm. fii fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ jàngee alxuraan lépp li ñu xam daal ci daal ji lañ ko xamee. Hmm. kon daal ñu ngi ñaanal sëriñ mu Bassirou yal na yàlla yokki leeram te taas ci barkeem di ñaanal Serigne Mountakha yàlla yàlla yàggal ko fi may ko wér gudd fan. yow oyofal yéen bi ci kaw comme oyof. kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ñu ñëwoon fii ci daaray Soxna Jaara tey jii alxamis yamoog le 17 août 2023 ñu àndoon ak Soxna Amy Mbacke sëriñ ndigalal sëriñ Maxtaar Jenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. رضيت ربا وادي وارناني واكرمني ربا رديت عن المولى تعالى الذي ربا وادي وارناني واكرمني ربا بغفلت اليوم عبد اللومي قديما دواما بالذي اختار asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nii seetaan ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di njaareem te sëriñ bu mag bi tudde woon ko Buqatul Mubaarak di dëkk bu sell di dëkk bu màgg boo xamante ni fii ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi jóge na Thiéyène ci 1912 lan ko indi fii mu nekk fii ba 1927 la wàcc ci liggéey ñu yóbbu ko Touba. fii nag lu baree bari xew na fi lu baree bari gis ngeen jumaa ji ngeen di seen jumaa la joo xam sëriñ bi moo tegal boppam xeer wi moo ko joxe woon ndigal yi tamit. Eh, ni ko sëñ ci waxe léegi bi sëriñ bi tegee xeer yi ba noppi eh, ñaan dafa woolu sëriñ Maxtaar Bintaloo <coughs> ñu woo ko ci mbooloo mi mooy mu jox ko ne ko ñaanal julli na fee sax ci wet gële kon ku nekk xam na fii am na fi at ak juróom yoo xamante nii daanaka lu nekk fekk na ko fi fi la njëkk a gàmmoo wala gàmm na fii tamit loo xamante nii ci ndigalul ñi nga xam ne suñu borom la doon déglu ci lépp lu muy def waaye fii tamit fi la sëriñ bi seexale ñu bare bare bind na fi xasida yu baree bari tamit fii taarix la am ci kii bi màggal ak Touba gi nga xam ne ñu ngi koy waajal wax na ne 1918 euh, la ko njëkk a woote fii la njëkk a biral loolu daan ne nan ma sant la yàlla lu ci waay man rek li ko dale ci gileem ba ci ginaar ba ñu demee ba ci 1922. boo xamante ni mbégam mbégam la na nga ko ci sant yàlla kon nag ñu nga ci pàkk bu sel sëñ Maxtaar Jenn mi nga xam ne nag euh, maamam taxaw na taxawaay bu rëy fii muy sëriñ Isaa Jenn Euh, moo tabax jumaa ji ci ndigalul sëriñ bi tey jii mu indi fi ay dongo yoo xamante ni ñu ci bari danoo mokkal alxuraan indi fi njaboot gu baree bari ngir ñu xam dëkk bi indi fi xale yi nga xam ne ay xale yu toll ci ay fukki at la juróomi at yoo xam mokkal naan alxuraan ñii jàpp naa ne tey buñ fi fekkoon sëñ Touba seen xol dina sedd lool ndax sëñ Touba dina leen boole ca mag ña ku nekk xam na ni meloon ti alxuraan waaye nag lii ñu def nag dañ koy defal sëñ Touba addiya ndax tey li am dakar naa ne murid yi ko am bariwul de yi ko am bariwul xëye Touba dem naawel dem poroxaan ñëw njaareem fanaani waat Touba a ah, loolu ñu ko am bariwul de kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan déwén ñu defe ko nii di ñaanal sëriñ Muntaxa suñ borom yàggal ko fi waaye di ñaanal sëriñ Matar suñ borom taxawu ko ba alxuraan ji muy taxawu xale yi ñu ci baree bari ciy jigéen ak góor ñu mokkal ko ñu àndoon waa daara ji ànd ak soxna ami di soxnaam ànd ak sëñ aale ak mbokk yi ngeen gis di jàngalekatu alxuraan yal leen yàlla def mag te def leen magi lislaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi daarul xuraan ca Touba daaru mën naan ci njiital Serigne Makhtar Diène di daara ju ñu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru zeng ay ndongo yu bëri mokkale fa alxuraanul karim daara jay dox ñuy yokk seen jéego ba tey daara ji mel nii macha allah ci ñaanuk Serigne Saliou Mbacké Khadimu Rasoul di complexe scolaire franco arabe bu méngoo ak jamono état du Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneen langue majalis yeneen xeetu xam ak jàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco arabe kër Mam Awalo ci njiital Serigne Makhtar Diène ca Touba Darou Manane am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire li jaase ya fa ndongo ya génnee di CFE BFM ak baccalauréat di ay diplôme d'état complexe scolaire franco-arabe kër maam Awalo ca Touba Darou naan ci njiital Serigne Makhtar Diène li ko tax a jóg mooy yaatal xam-xam ni ko Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee blog yi ngeen gis ci complexe bi mucc ayib lool lépp ngir waajal ndongo yi ci seen nekkin seen dundiin ak seen sécurité blog A bi ñu tudde ko Daaru Alimul Xabir blog B ñu tudde ko Njenne Lagan blog C bi ñu tudde ko Touba Xelkom ci complexe scolaire franco-arabe kër maam Awalo ci njiital Serigne Makhtar jenn ca Touba Daaru Manaan jàngale mu mucc ayib ak jàngalekat yu xarañ lool yéen waajur yi bëggal seen jaboot avenir bu leer nañ ngir ëllëg ñu mën a jariñ seen bopp jariñ seen waajur jariñ seen réew taamu leen complexe scolaire franco arabe kër Maam Awa Lo ca Touba Daaru Manaan ngir seen jàngum doom mbind mi di tàmbali ñaar fukki fan ci weeru août 2023 ubbite complexe bi ci weeru octobre 2023 place ya ñu limité leen képp ku ci bëgg ay leeral gaawantul woote ci 33 978 90